li dal Nokia dal Tonnerre moo koy dal incha allahu man maa ko laaj maa koy jël maa koy duma maa koy daan si kàttanu yàlla. walaay di nga xam ne góor nga ko saxal. dinaa la duma daan la. boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la. damaa daan Nokia daan Tonnerre te yow laa ciy teg incha allahu bii mooy sa dernier dugub. su ma paree si yow continuer sama liste des na ñeneen a ñeneen. yaa taxaw wax lii. waaw bu jour waa na nga taxaw rek dëggal li nga wax. di nga xam ne lépp dëgg la. jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Bawal TV ñu ngi amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak yéen ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di ñaanal ñu tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu faatu yàlla yërëm leen xaare leen àjjana ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw yàlla na leen fa yàlla ñu koy defal comme ni leen ko daan defalee ak seen bi di Bawal TV ñaanal leen chaîne bi nga xam ne yaakaar naa léppam làmb la waaye tey nag ñu ngi taxaw kenn ci waa jàmbaar production ñu gën ko xam ci Mor fas yéene waxtaan ak moom ku ne xam ne ci liñ génn keroog le 6 novembre fële ci arène nationale diggante Siteu ak Papa Sow ku ne gis na ni mu demee ñuy félicité Siteu di encouragé bi nga xamante ni mooy Papa Sow di ko wax làmb nii la da nga daan daan keroog ñu daan la làmb yemul fii ginnaaw ba nuyoo ñu jox Mor mu nuyoo ñu dugg ak moom ci waxtaan bi Mor nuyu nañ la si waa ñu ngi lay fay di nuyu waa Bawol TV di nuyu tamit euh, mbokk internet yi suivre Bawol TV yëpp ñu ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam waaw di nuyu tamit euh, staffu jàmbaar production bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg si loxo PDG bi Mansour Ba waaw ak équipe bi ñu si àndal yëpp ak assurance bi nga xam ne maa ngi moom ñoo ànd ñëw tey fii nii waaw ñu ngi nuyu gars yëpp daal di jox ñëpp seen wàccuwaay waaw. waaw Mor ginnaaw jigéen ci la siis ñu gis keroog ni organisation bi demee ni stade bi demee seen wàllu organisation nan ngeen ko xalaatee ba tax stade bi keroog macha allah foo sànni mbattu mu takk. waaw tout d'abord comme selon des fois dama kay faral di wax ci communication lu bari label bi di jàmbaar production mën nañ ne label bi gan la ci làmb mais ñay organiser duñ gam gan ci làmb moo tax tey jii suñu organiser dara mu am réussite à 100 pour cent lu war la parce que tamit ña koy def miin nañ terrain bi xam nañ ko. te lépp loo xam ne dugal na ko si wàllu organisation suñu defee mu réussir lu jaadu la moo tax tey kilifa yu bëri woo nañu rafetlu organisation bi nu mu demee méthode beeg lépp te tamit làmb fa la jëmee incha allah waaw si organisation bu jaar yoon daal. mais ñu gis keroog macha allah comme organisation bi ni nga ko waxee nii mais staffu jàmbar production la mooy seen secret ba tax saa bu ñu wootee rek yaakaar naa bi mooy seen deuxième sortie gisoon nañ ci soqu franc. tey ngeen ñëwaat wanewaat lu mel nii seen secret lan la ba tax bu ngeen wootee Sénégal ñëpp wuy si leen. waaw secret jàmbaar production du lu du dara lu dul ay jeunes yu fa nekk am ambition ay jeunes yu fa nekk seen xool rafet ñu am yéene si jeunesse bi ay jeunes yoo xam ne tamit euh, wax dëgg yàlla heure bu ñu jubee programme dañ siy dem à 100 pour cent pour mu am réussite ndax programme boo mën a gis. maanaam soo ko cofee rek la nga siy bëgg dëgg doo ko am te ñun duñ cof programme dañ koy jox a xam du début à la fin moo wax mooy wan ne heure bu ñu tëggee stade bi day wan ne tey jii kat waa jàmbaar production ñëw nañ fi quoi loolu loolu mooy secret bi quoi mais ñu gis keroog euh, presse bi ni mu demee yaakaar naa ñëpp wàcc am na ñu wàcc liggéey mais am na ñoo xam ne dañu leen a toogloo woon ci kaw loolu noonu nan la demee woon Mor presse bi parce que yaakaar naa ñoom ñëpp ñu ngi ñaxtu. naan affaire bi tegul ci yoon parce que am na ñoo xam nee na dañoo liggéey ci làmb ba jour làmb ji ñu aj leen ci kaw am ñoo xam gis nañ leen ni liggéeyuñ ñu nekk ci suuf ñoom loolu moo ko waral. waaw côté boobu pour wax si day yomb parce que tamit dañ ne woon sept sit internet la ñuy jox accréditation. Mhm. waa si kaw sept sit internet yi ñu waroon jox accréditation d' ailleurs tey jii dem nañ ba vingt sit internet parce que tamit gis nañ si ñoo xam ne dañ nañ si coono te ñun label bi di jàmbaar production bugguñ leen neenal mais li ñu waxoon mooy du dépasser sept gis nañ euh, presse en ligne bi yàgg nañ liggéey si ay événements yu mag te jouru combat sax euh, billet bi leen di dugal si bi du am. jouru combat bi amul benn presse en ligne yenn événement yu mag yi buy ñeme wàcc si digg géew mais ñun label bii di jàmbaar production loolu dalunu parce que tawit presse en ligne ñu si bëri suñuy frère la ñu si bëri ñun ak ñoom ñooy nekk chaque jour moo tax dañ koy rafetal saa su ne ñun ak ñoom dañ ne woon sept ñooy dugg yóbbu nañ ko ba vingt kon ça veut dire ne respecté nañ presse en ligne critique nag mënut a ñàkk ñëpp tam mënun bokk ndoo béeg adduna moom foo dem ñii dañuy béeg ñii euh, bañ kontaan noonu lay demee mais incha allah dinañ gën a rectifié wu si côté yu bari quoi waaw. mais ma gis ni presse bi ñoom it ñu ngi ñaxtu bu baax a baax a baax a baax naan lii waa jàmbaar rek chaque lamb bu ñoom nii lañ leen di def contre Zos kii Franc Sokh noonu la demee euh, ñu ñëwaat ci a Papa Sow mu demewaat noonu. bi nekk deuxième fois nekk est ce nekkul ñeenaan loo xam ni waa jàmbaar ñoo koy tey di ko def. non jàmbaar tayuñ ko xam nga tey jii nga ne woon sept sit internet ngay jox accréditation nga dem ba vingt kon yow wàccoo nga ak ñoom mhm. parce que suñu li ñu waxoon. làmb ji sept site internet ñoo si waroon dugg ak benn télévision muy huit ñun loolu lañ décidé woon def si làmb ji ñoom yàgg nañ liggéey si programme yu mag ñun si làmb lañ nekk comme ñoom niñ si nekkee ñu ak ñoom ñoo nekk si terrain bi yàgg nañ liggéey si événement yu mag a mag te jour làmb ja bii làmb bi leen dugal si stade bi sax duñ ko am te dafa am ñoo xam dañuy kaas ni dañoo déplacé woon dem fii ba januar daj ci coono gu bari liggéey ci liggéey bu mucc ayib ñëw ba fii gars yi mooy loolu xam nga jàmbaar production wax dëgg yàlla des fois tamit day mettre en valeur presse en ligne bi mën na ne John Waar am na euh, ñoo xam ne ñoo paasal seen bopp mais jàmbaar production label dafa jël sept oto te teg ko disposition presse en ligne mënoon na ko si bañ a fekk parce que mën nañ ne presse en ligne ñooy outil contenu tey jii John Waar nga dem jëli ji fa site jëli village bi sa site mooy loolu contenu bu baax ngay am parce que tamit beneen documentaire mën nga ko fa am tey jii nag suñu leen joxee moyen yoo xam ñoom ñooy dem librement nga xam dañuy dem dem tranquille ñëwaat tranquille ça di dire ni am na fuñu leen teg mais tamit euh, xam nga des fois di nga am say cible ne set laa bëggoon liggéeyal mais si set yi gis nañ si yokkaat nañ si treize sites treize yooyu ñu si yokkaat mooy loolu bokkul woon si bis bi loolu yëpp pour defar la mais des fois di nga gis di nga bëgg a defar ñeen ñi gisee ko ne mais incha allah dañuy gën a jéem rek su ko defee ñëpp di bég waaw mais ñëw tey fii ci ministre des fekk leen fi fekk waa jàmbar production la ma waral tey seen teewaay fii ci ministère bi. waa en fait dañu waroon am rencontre ak le ministre des sports mais finalement dañ ko pousse ba 16 heures. waaw parce que ministre bi dafa euh, am yeneen occupation yu nekkoon la matin moo tax gars yi pousse ko la ba 16 heures quoi mais incha allah daal ñu ngi dem ba si kanam waaw ñu jéem a xoolaat waaw. mais ñaari mbër yi dañuy teew. waa ñaari mbër yëpp dañoo war a teew Siteu dafa war a teew Papa Sow dafa war a teew d'ailleurs Siteu yegg si woon na sur yi mhm. mais Papa Sow jotul woon départ ñun si finalement si lan ko woone ko dañ ko pousse ba 16 heures mhm. après mu mujj toog daal waaw mhm. mais sa digganteeg ñi nga xamante ne ñooy waa Lansar sa digganteeg Max Mbargane lan la lan moo ci xew non maa ngi Max Mbargane amul diggante mën nañ ne Max Mbargane la ak jàmbaar production parce que projet bi Max Mbargane dañ ko associé biir jàmbaar production mu bokk ci conseiller d' abord ñun duñ def loo xam ne duñ ko laaj su xalaat mais dañu gis euh, des fois muy am yenn attitude yoo xam ne jàmbaar production rafetlu wu ko te tamit ñun ay nit yu dëggu lan ñun luñ rafetlu dañuy taxaw ne carrément lii rafetul parce que tamit euh, Siteu tey jii mënul ànd ak ay nitam ñëw ba buntu stade bi ñun xam nañ ne wàllu organisation digg géew euh, CNG ko yor wàllu euh, euh, compte mbëri seen ko yor mais su bëggee intéressé les forces de l'ordre les forces de l'ordre jàmbaar moo leen jël moo leen fay indi leen si bis bi tey jii lépp lu mu leen wax rek day mel ne jàmbaar production la ko wax tey jii su leen attaqué ne xanaa da ngeen faral camp bi ça veut ne ñun il est temps tamit ñu def sorti leeral na jàmbaar production amul benn mbër mu muy tëgg di par parparloo ñun dañuy tëgg mbëri euh, ku yemale parce que tamit suñu doon parparloo duñ dugg si làmb dañuy toog nekk ay amateur comme ñëpp mais mun ne labal de production la ay professionnel la ba pare di tëgg di far far loolu loolu duñ ko def d'ailleurs loolu sax moo tax enceinte euh, euh, lamb ji yëpp mën nañ ne ñaari membre jàmbar production fa nekk ñaar kenn ki moo taxaw si port mbëri ak waa CNG ak les service de l'ordre beneen porte bi mooy loge officielle bi d'ailleurs la parrain ba muy ñëw dane côté droite la war a jaaree côté droite fa la Siteu teg cumbukaayam ma woo la président des amateurs Gora Ndoye ma ko jëlil parrain bi ànd ak moom ba mu romb man maa ngi si loolu di leen xaar loolu yëpp pour mettre à l'aise Siteu parce que tamit Siteu du ñu gën a goree tëgg nañ ko mu war nu ngor war nu jàmbaar war nu lépp ba pare ñun ñuy naan dañuy faral kii wala kee saa su ne dañuy yemal parce que ñaari mbër leen euh, Max Mbargane da ka daan wax si communication lu bëri ñaari ndamay dugg mee benn génn kon nag suñu borom moo yor ndam ñun yoru ndam ñun suñ doon yor ndam suñu bopp lañ koy def gën a yokk noonu lay demee mhm. mais adduna dafa laaj di rafetal quoi mais kàddu yooyu moo nu dérangé ba ban génn def nañ si sorti ba pare quoi mhm. waaw su ma déggee daal Max Mbargane dafa jàppoon ni da ngeen a faral Papa Sow non xam nga ak yenn communication yi su ko tenir rek en fait day foog ne ñun dañu féete camp Papa Sow favoriser leen si journée bi te en fait euh, mën nañ ne Papa ak Siteu lañ yemale si journée bi ndax làmb ñoom ñaar ñoo ko bokk kenn ëppalewu si morom dara ki liñ may kii lan may kii liñ wàññil kii lan wàññil kii Max Mbargane ancien la si am tey jii mën nañ ne euh, Siteu su indee ay personnes yoo xam ne dafa ëpp pourquoi pas mu dem saisir waa CNG ne leen euh, surpris yàgg na si làmb compter leen nombre bi mu ëpp ngeen dag ko si sirle li am ñun ñëpp ay nitu làmb la xam ne loolu lay demee mais su taxee publiquement booy euh, ñoom Siteu ay xale rek la àndal taw attaqué service de l'ordre xanaa da ngeen parparloo te moom mu xam règlement nu mu war a demee lan moo tax demul si règlement bi direct ndax foofu noonu membre CNG fa taxaw ndax Siteu am na droit lépp lu ko topp si ginnaawam surprise ñu bindal ko ko wàññil ko waa CNG ñoo koy dagg seen xaalis loolu du du labelu jàmbar production du les service de l'ordre beneen yoon ñuy xool communication yi di ko rafetal parce que tamit làmb dafa laaj ñu defaraat ko parce que label bii di jàmbaar production ñëw pour yokk làmb mën nañ ne euh, di deux événements yi ñu yëpp lu dundalaat làmb la lu joxaat làmb beneen xar kanam mooy wane ne jeunes yu mel noonu dafa laaj ñu encouragé leen ñu dafa laaj ñu jàppale leen dafa laaj ñu taxaw leen pour vision bi ñu am si làmb ak fi ñu bëgg a yegg si làmb ëllëg ñu mën a atteindre seen objectif lool loolu mooy loolu mooy mooy rôle ñëpp. mais tey jii suñu gisee ay kilifa di communiquer nee mën na nekk ay faxastal mën na nekk ay doute yoo xam ne suñu prochaine journée yi nga xam ne bëgg nañ ko entamer mbëri bañ ñu wóolu te ñun ñaanuñ ko yàlla di tëgg ak mbër di parparloo Siteu soo ko tàllaloon sa micro durant combat soo ko laajee combat bu mu gën a nekk à l'aise danaa la Siteu Papa Sow combat bu ma gën a nekk à l'aise dajuma si coono combat bi la parce que teguñ ko benn pression lu mu bëgg lañ koy defal euh, heure buy def euh, signature dinañ ko avertir à temps sonnaluñ ko di ko jaabantoo ay 10 signature 15 ñaar rek lañ ko def loo pare si parce que tamit ñun am nañ suñu méthode de communication boo xam mën nañ jaay suñu combat te mbëri sax duñu fa teew daal mais xale yooyu ëppoon mu joon nañ dugg wala dugguñ ci stade non maanaam mujj nañ dugg parce que tamit règlement CNG la parce que su ëpp nañ circuler su jaaree CNG ne leen nii dañ koy bind dañ koy bind loolu loolu règlement mënuñu si dara. loolu ñu dag ko ci xaalisu mbër. si xaalisu mbër loolu waa CNG koy dag loolu si xaalisu mbër lañ koy dag loolu règlement bu CNG bi teg la mais du jàmbaar production mais tey ji les forces de l'ordre dafa boo danoo bokk si jàmbaar production parce que ñun ñoo leen fa teg. Mhm. ñun ñoo leen fay ne pour ñu sécuriser suñu làmb tey jii su benn attaque boo xam ne da ko def ça veut dire ne label bi lay waxal te moom mu ngi bokk si biir amul dara loo xam ne ñun dañ koy def si label te duñ ko tàggu le président Cheikh Tidiane Niang dama koy nuyu au passage le matin ay vers 11 heures damaa woo ne ma dañoo am suñu ñaari booy yoo xam ne cumbukaay Siteu ñoo ko war a garder ma ne père yéen da ngeen bokk si bis bi loolu lañ si bëgg ñëw leen def ko xam nga ko jox nga ko cër quoi tamit boole nga ko sa bopp taxawaay boobu comportement bi laa bëggoon père Max am ko ba mu jeex parce que début bi ba léegi loolu lañ ko wan mais suñu demee ba fin bi muy génne benn kii bi image bi loolu duñ ko rafetlu te dañ koy dañuy dañuy wax te tamit dara mënul tee ba liñ bëgg a wax duñ ko wax. mais ñu gis keroog yaakaar naa ñaari mbëri bañ nekkee ci géew bi ngeen promoteur bu wàcc may ñaari yokkal ñaari mbëri ku ci nekk 500000 loolu noonu la moo ko waral da ngeen a kontaan ci ñaari mbëri wala nu mu demee noonu. non xam nga le ministre des sports. Mhm. Euh, pour la première fois bañ ko faleeg léegi mu wàcc ñëw. Euh, journée jàmbaar production première sortie am journée jàmbaar production la ko def ba muy ñëw nag le ministre des sports ñu ngi koy nuyu au passage dafa defaale teraanga bu rëy c'est pas jàmbaar production c'est le ministre des sports moo ñëw euh, seet si nu en tant que ay doomam en tant que ay ndaw yoo xam ne bëgg nañ développement sport bi mu ñëw kontaan si organisation bi ni mu demee may Siteu 500000 may Papa Sow 500000 may label bii di jàmbaar production un million un million yi nag ba nga père Bécaye ba nga ko joxee Mansour Mansour dana jox ko Mor. léegi ba ma joxee un million yi Mansour li ma wax mooy Mor un million yi bu bu mu génn bi tas ko si. Euh, géwal yeeg tas ko si nutulaam yi ñu tas un million yi noonu la noonu la ñu si tool ñun ñëpp. waaw di ko remercier le ministre des sports si geste bi mu def. parce que mënoon na ne ñëw ne damay ñëw seetaan si bañ a def benn geste mais tey ji dafa ñëw seetaan si ba pare defaale teranga bu. dañ koy sant di ko si gërëm quoi waa waaw gis nañ seen ñaari sorties yi macha allah ñu leen ci félicité bu baax a baax surtout bii ngeen génn mais jàmbaar la lan mën a xaaraat ci ñoom ci li des ci saison bi. waaw mën nañ ne ñu ngi si ñetti affiche di ko démarché dañuy wax jàmbaar production na leen làmb ñaanal am nañ gëm-gëm am nañ vision xam na nañ liñ bëgg xam nañ fi ñu bëgg a jëm nan ñu ñaanal combat yi nekk ni suñu borom teel ko sottil su ko defee ñu jàpp date bentoo ñu démarché waat promotion defaat événement parce que tamit. làmb amateur yi namm dañuy namm journée jàmbaar production parce que xam nga lu tax ñu koy namm premier combat ba grand combat da ngay dund événement da ngay dund spectacle da ngay dund bëre bu neex parce que ñi composé jàmbaar produit mën nañ ne ay amateur du làmb la ku ñëw da ngay kontaan parce que doo doo gis combat cuune si journée bi ay combat de qualité ngay gis te la prépare journée yu mag yi da gis ne tête d'affiche bi lak ngay la ñuy waxtaanee uh-huh. mais tey jii mën nañ ne journée jàmbaar production ngay ñëw mbër yi bëre ba pare site internet yi di daw di njëkkante mbër yi ndaw yi ay interview soo xoolee mbër yi ndaw yi ay Anaconda ay Mbacke fay ay Petit Lo ay Ziza ay Ñang Baalo Caatu Puyol da ngay gis ne ñoom ñëpp site internet ñu ngi daw di leen song di jël ak ñoom interview ça veut dire ne ay mbër yu làmb xam la ay mbër de qualité ay mbëru avenir la te tamit loolu la foofu la làmb toll làmb dafa jot heure boo tëggatee garan combat nga bootal ko ay combat de qualité yoo xam ne nit ñi dañ leen di xam ay mbër yoo xam suñ jógee nit ñi bàyyi leen xel ñun label bi wax dëgg yàlla ñun noonu la ñuy fonctionner daal waaw. kon daal na leen xaaraat seen prochaine journée yéen ngi waajal ñetti journée yoo xam ni na leen ci gars yi bàyyi xel. non incha allah ñaari journée la ñuy waajal. di ñaan yàlla mu sotteeg jàmm su dee sotti na fin saison dinañ au mois de juin juillet dinañ tëgg ñaari journée yu mag na nu si ñaanal waaw ñu ngi remercier gars yi yëpp yi nekk suñu ginnaaw di jàppale. képp koo xam ne tamit yoroon nga sa course di ñu ñaanal bi parce que euh, boo xam ne. nit ñi dañ dañ ko ragaloon mm-hmm. dañ ko ragaloon te tamit ñun dañ si am taxawaay wax dëgg yàlla am nañu ñun bëri ñaanal nañu pour journée bi yegg si jàmm te tamit mën na ne c'est le combat le plus fair play soo xoolee combat yi ñu fi assisté yëpp Siteu Papa Sow seul leen gis ne combat bu fair play la euh, Sokh Franc combat bu fair play parce que gis nañ ñaari mbër ku si daan sa camp day ñibbi tranquillement Sokh ba ko Franc daanee dafa camp dañu ñibbi tranquillement ay supporteram gisuñu fa benn scène de violence mm-hmm. quand Franc ñibbi noonu Siteu tamit ba mu daane Papa Sow quand Papa Sow dafa ñibbi tranquillement quand Siteu ñibbi tranquillement notewuñ fa benn scène de violence lamb loolu la la lamb sport la la sport ay gagné faw ñu ñi di comprendre ne sport des fois nii lay tëddee ndam li génnul Sénégal tey jii Siteu Papa ay doomu ndey waaw mhm. waaw nañ koy rafetal rek lamb lool la day rafet ak nay kàddu yi di rafet ñuy defar ñu ñëpp benn la waaw di xool lu koy avancé la ñu jëm si ne waaw ah. waaw bég si Baol TV nag ak pël sama xarit bi waaw jaajëf jërë ngeen jëf gars yi gis ngeen loolu la leen indiloon tey ak Mor waa jàmbaar production may gërëm sama caméraman Badou sama jigéen pël di leen joxaat dig daje beneen yoon incha allah jaajëf Badou arbitre sifflé di nga xam ni maa la dàq bëre maa la ëpp doole. man a yow fii du sax làmb ngay nekk fii di feemu. dëgg la sa bopp rek nga xool dama neexal ak géem neexal la suite teg bësël bësël bi. sa ngaata gi ngay tëj wax ji ngay wax dafa bëri toujours nga def émission di jéem a xëw. arnaque bi da dal dal kapsin zambala bi la baana baana bi arrivé Congo cinéma de Paris. 1000 combats ma daan la 1500 fois ma la jàppee nga xam ne doo si dërëm. arnaque bi da dal ngay palaxu noonu.